rek saa su ne ñu bari daal yaakaar ne ndax élection dina am ndax gis nañ ne ñu ngi ci ndëgg sarax gu nga xam ne moo ñeel 2023 2024 électeurs yi nag ñoom daanu fàttali ko ci ay at ne daal amoon na lu fi xewoon ci atum 2024 ci présidentielle bii daanaka sax lu bëree bëri ay jafe-jafe yoo xam ne moo ñeel processus bi ñu bëri yaakaar ne kat wóoratul ñoo xam ne kat mbetteel la ñu am daanaka sax ñu bëree bëri leen gën a metti mooy mbir mi na muy toftoloo bu gën a metti rek gën a yées sa morom waaye tamit loolee ñeel àdduna ci wàllum politique ñuy fàttali ne report bi nga xam ne dafa betti ñëpp ca saasa rek date bi nga xam ne moom lañ jàppoon ne ci ñaar fukki fan ak juróom ci weerum février élection dootul am ñu bëri yaakaar ne tamit loolee sax jëfiquement tey la ci njiitu réew mi nag daanaka def nag benn jéego dem ca kanam defaat benn jéego delluwaat ca ginnaaw ñu jàpp ne kat atum 23 juin bi 2011 ñu bëri loolee fàttali ginnaaw bi ñu bëri yaakaar ne vote dana la di am France daal di xëddeen réaction bi nga xam ne moo gën a tar lool ci conseil constitutionnel waaye naka nag ñun nag kenn duñu fontoo ñu bëri gis te ne élection kat war na mën a am waaye ci noonee kat beneen wàll ga mooy ñi nga xam ne dañoo lànk ba tëdd naaj wa am ñoo xam ne nee na kat ay frustré lañ maanaam dañoo mer ba fëtu ñii kat ñoom daal di bokk ci kuréel bi nga xam ne mooy front démocratique ci benn élection bu ñëpp du bokk ñoom nee nañu bëgg rek moo ñu dakkal ko ca saasa ndax am na loo xam ne jaaru yoon waaye nag front démocratique bi ca ba mobiliser wu ca mbedd ma ñu bëree majorité ñoom ñi ngi ñaawlu kat décret présidentiel bii ne la mu convoqué corps électoral bi baaxul waaye tam am ñoo xam ne dañuy daal di am sikki sàkka ci ndogal bi nga xam ne moo tukkee ji joom ñaari saas yi waaye li gën a métti lool te am guerre lool mooy diggante décision yi nga xam ne moo tukkee ca conseil constitutionnel ak ñi nga xam ne ñooy exiger kat ñu tàmbaliwaat mbir mi ndax gis nañ ne njaw des na xambin ñoom yaakaar ne daal seeyal gu nar a nga xam mooy conseil constitutionnel jaarale ko ci parlement bi loolee sax nar na baax kon ñu bëri jàpp ne coup d'état constitutionnel la coup d'état institutionnel nag bi nag moom loolee ñu bëri kat ñu ngi ko doon ragal waaye li nga xam kat moo amaat nii maanaam tabb ki nga xam ne moom la ñu tabb di yaa met si Kaba mu nekk premier ministre loolee ci yaa euh, tàmbali nga xam ne mooy campagne bi ñu bëri gëm na ne kat loolee dana yëg ci cappaandaw la ama ci ñoo xam ne ay jëwriñ lañu am ñoo xam ne tàppal nañ noo ma tànk waaye itam Amadou Ba moom dañ koo tege nele ndax moom la ñu investir naam xanaa dañ ko bëgg a kon nag débat bi nga xam ne moo am ci ñii dañ koy jàppal tànk ci moom Amadou Ba ñii nag dañ koo contre ci composition gouvernement bi ak campagne bi nga xam ne war na tàmbali kon électeurs yi ñam ñi ngi gën a jege lool ñaar fan ak ñeent ci bis bi nga xam ne moom lañ tàmm ci weeru mars bii ñu war a wote waaye nag danoon sori lool ñi nga xam may ñooy waa société civile ak ña nga xam ne ñooy woy politique bi ak universitaires yi ñoom kat daanu dégg seen baat fexe ñu exiger wàllum principe fondateur yi nga xam ne moo ñeel état de droit ak mécanisme nga xam ne moo koy suuxat daañu xeex ci nii mbaa ci nee ngir li nga xam ne àq ak yelef doomu aadama yi kenn bañ ko salfaañe ndax daanu fexe ba askan wi tabb juróomeelu président mii ci réewum Sénégal